ñiy jullit ak ñu dul jullit pour bañ a offensé beneen beneen beneen kii euh, euh, diine ñii jullit ak ñu dul jullit ndax deewu benn acteur boo xam ni du jullit waaye koo xam ni sénégalais yi ku nu bëggoon de euh, wax dëgg yàlla waaye mel na seen cofeel dem na ci ba ñaanal ko njéggal suñu borom ci ñi jullit ñi waaye loolu indi polémique ñu ni jullit dana dana du ñaanal ku dul jullit wala dana ko ñaanal yow lan moo ciy sa waaw ah, loolu jarul polémique parce que itam diine bi nga nekk day dellu ci tarixa ba nga ma doon laaj rek bi nga nekk da nga ci bala nga ciy dugg da ngay xam faarifoo nii xabla an taabudoo nii fa in lam foo nii fa kay fa taabudoo nii xam leen ma doog maa jaam bu ngeen ma xamul da ngeen di saboté rek du ngeen def dara lu kenn xam diine bi boo ciy dugg dangay ngay fexee xam lan la diine bi santaane ak lu mu tere lum la may ak lum la mayul soo xamee yooyu ba pare nag nga doog a mën a koo pratiquer nga doo ko pratiquer waaye yow xamoo ko ba pare dugg di def di kenn xamul loolu mooy problème bi diine daal li mu bëgg mooy bala ngaa dugg daal xamal li mu la sant ak li mu la tere voilà loolu mooy mooy moo solo li nga tey bu fekkoon xam nañ ko coow du am waaye buñ ko xamul coow dina am mais ak loo am cofeel ci moom doo ko ñaanal loolu daal laa wax léegi tey bu ñu xamee am ñu bare wax fa dëgg yàlla xamuñu diine gi xëy na tey ba tax na am na ñoo xam ni dem nañ ba jàpp ni man rek am na ku ma ci waxal mun na diine foofu moom dafa juuma. moom dafa moom moom juutu moom dafa juutu moom mi la wax loolu parce que diine yëpp buñ bokkee juum moom dafa juutu. dafa juutu bu baax parce que diini du juum lu alquran indi ngeen ne dañoo juum yow da ngaa juutu boo demee sax amul diini ki la wax loolu amul diini waaw waaw la ko amul diini wallaahi amoon diini du ko wax jamais diini dafa juum la ko wax dafa juutu moom ci boppam waaw diini du juum mukk mukk mukk xanaa dafay def kay lu la lu la jub loolu waa lu la jubluwul nga wax waaye waaye diine moom du juum diine moom ju du juum waaw léegi xëy na nag moo wax loo xam ne arrangé wu la bu la arrangé nag ah nga waxee ko neneen wala nga defee ko neneen waaye diine du juum jamais waaw mukk ci àdduna léegi tey kon loolu dégg naa nga ni <laughs> lu alxuraan saxal la ni jullit du ñaanal ko du jullit ko dégg dama lay laaj kon sama déggin man waaw kay da naan sama xam nga loolu lépp alxuraan indi na ko moo tax ma ne la bala ngaa dugg ci diine dangay xam li nga xam ne moom la diine ji santaane ak li mu tere te doog a dugg diine waaye boo duggee ci diine te xamoon lu ma santaane lu mu tere léeg-léeg waaw alquran moo ko wax ibrahim ba muy ñaanal baayam yàlla def ko ne waroo koo ñaanal waaw ndax bokkul ci sa diini muhammad sallallahu alayhi wa ba muy ñaanal baayam yàlla def ko ne ah yaa ngi def erreur nag waroo koo ñaanal ndax bokku leen diini koo xam ne bu ñaanee mu nangu warul ñaanal ku ku ku bokkul ci diini waaye koo xam ne boo ñaanee falaa falaa rek lay doon ñaan yoo xam ne gëmoo ci dara loolu jarul xuloo jarul xuloo sama diine daal lii bëgg ko jarul xuloo sama lii la bëgg jarul xuloo waaye na fekk tam ngay ngay pratiquer diine yi mhm. na ngay yi diine di ko jëfee ni ñu ko santaane voilà waaye nag bul ne rek sama diine lii la bëgg xam nga gars yi dañuy xuloo ci luñ xamul tariixa yeeg diine yi yëpp dañuy xuloo luñ xamul rek waaye lépp sawar la rek mhm. waaye boo xamee li nga xam ne sa diine moom la la sant doo ko xuloo loolu yàllaa ko yàlla yàllaa ko wax ci waaw léegi luñ ci bëgg a di xanaa ñun duñu weddi wax yàlla kay di topp waxu nit déedéet waxu yàlla duñ ko weddi mukk mukk mukk di topp waxu nit waaw waxu yàlla lañuy ñuy topp dañu ne ñee nañ ko ñaanal ci seen diine mm. ñii itam nañ yem ci seen diine bañ bañ cee dugg voilà ko koo bokkal diine ñaanal koo bokkal diine ñaanal koo bokkul diine nga maanu ci moom. voilà mënis na ko jaale ji. mënees dem ci rob man ngaa dem ca rob ba. man nga koo jaale ji man ngaa lépp mën ko def waaye nag doo dem di ko ñaanal. waaw ñee ñoom am nañ seen façon. Mm. nañ ko ko defal nga fekkee ko. Mm. waaw bu la neexee nga fekk ko. Mm. waaye nag kanta ngay jëlaat eh, ay ñaan ak yooyu di ko def ci moom déedéet. kon mu mel na oustaz po ah, ayca mu mel na polémique boobu day day day ñëw saa ne rawatina ci mariage yi sax mariage yi nga xam ni euh, ki ki nga bëgg du doon euh, du doon jullit yow jullit gi surtout su fekkee jullit bu jigéen la tey euh, lan la ko lislaam sant ci bu see ki nga xam ni du jullit. xam nga diine yëpp a lislaam buñ ne la bokkaale mm. bépp jigéen bu ci nekk bokkaale yàlla mm. jullitu la takk ci biir lislaam bi waaw boo bokkaale yàlla kenn lu la takk wala tun ko woon mushrikaat mm. yàlla nee na bu leen takk bu leen takk way bokkaale yi bu dee catholique bi doo ko takk ñoom dañu am ñetti xaaj daa am ñu wax ne Aïssa doomu yàlla la ñu ne Aïssa yàlla la ñu ne Aïssa jaamu yàlla la mais du doomam du yàlla. ñooñu dagan na nga takk leen. tey noo leen di xam ne. nga xam bu la ndaw si nag ne man jaamu yàlla rek laa ko jàppe na baax na. loolu la boo déggee catholique mën nañ koo takk ci charte boobu la ñett lañu ñu xaaj. xaaj bii dañ ne ay saa yàlla. xaaj bee ne Aysa doomu yàlla hmm. xaaj bee ne Aysa jaamu yàlla hmm. ñu ne jaamu yàlla nag ñu ni ñun lislaam hmm. mën nañoo takk ci ñu ne jaamu yàlla dagan na waaye ñu ne doomu yàlla sax ñu ko takk parce que ñoom dañoo bokkaale kon ñu itam duñ bokk duñ takk kuy bokkaale waaw loolu loolu la jafewul jafewul jafewul a jafewul a dégg jafewul a xam waaw bu dee ci jul lislaam bi doomu yàlla boo nu yonent yàlla Muhammad doomu yàlla duñ la takk mm-hmm. soo ne yàlla mm-hmm. duñ la takk soo ne jaamu yàlla nag abduhu wa rasuluhu mm-hmm. ñu takk kooku dana dagan ñu takk la su ci diine Isa euh, Moussa boo ni Moussa doomu yàlla wala nga ne jaamu yàlla walla nga yàlla la boo ci wax budul jaamu yàlla rek duñ ko duñ ko takk xam ñoom ñu ne Uzayr ibnullah mm-hmm. ñu ne Uzayr yàllaa ko jur <laughs> malaaka yi ñoom itam xattal be ko ci àll ba ne almalaykatu banaatullaay arab yi ñoom loolu la ñu wax ñeneen malaaka yi ay doomu jigéen yàlla lañ man ay dof lañu rek mm-hmm. dof ah dof buy loo ci man ba mm-hmm. koy bàyyi mu dof rek waaw loolu moo ci nekk waaye nit ñi nag euh, ñi koy weddi saxal dañ dul xam fu ñuy jaarale seen wax lii rek la bu dee ci lislaam bi boo ni muhammad sallallahu alayhi wa yàlla la yow xeet woowu dootuñu takk ci yow parce que mushir ngeen mm. da nga naa bu wutal yàlla nawle donte ay jullit mm. ay jullit ngeen woote ay jullit ngeen woote ngeen ni eh, yàlla la mm. dootuñu leen takk donte jullit ngeen woote su ngeen ne jaamu abduhu wa rasuluhu jaamam la ndawam la ali mën nañoo takk ci yéen ñëpp waaw waaye gars yi dañ ko tënk tënk boobu ñu ko tënk nag day day day day day métti ci xolu ñeneen. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaye boo ko tënkee ñëpp xam ne lii lii la mu jeex. Mm-hmm. waaw. léegi tey dañuy gis ñi nga xam ne du duñu jullit ci góor ñi di ñëw di takk ñun ñii jullit ñii jullit ci ñun jigéen ñi boobaa tamit lan mooy kii bi. jullit comme ki nga xam ne du jullit góor di takk jullit bu jigéen wala boobu dagg mu benn yoon. non non non ñun daal mën nañoo takk ci ñoom ñu ciy jigéen mën nañoo takk ci ñoom ci charte yi ma la wax nag laa xam nga jabar gars yi nañ seetaan mbir yi jabar dafa am ay condition yu wér dañ ne la bala ngaa takk jabar na yi am góor gi balaa takk jabar na yi am yooyu na daje waaye bu fekkee ne lépp dajul nga gis benn jigéen rek nga takk nga woy dafa rafet man moo ma ci duwal nangam nangam loolu du jabar mm-hmm. da takk koo xam ne euh, xam nga yow góor bi dañ ne bala ngaa takk jabar mm-hmm. na nga am wa na ki suusa wa na ki suusa waaw wat un mm-hmm. bu jëkk bi mooy laal na nga mën na nga nekk góor waaye bu la wóoree ni doo góor boo takkee da ngay weeru <laughs> jabar wàcc na la jabar na la nuun gi mooy nafaqatun góor nga nga am man dépense waaw bu dugg de kusuwatun nga am koddaay bu dugg de saddaax nga am can alal ji ñu lay laaj bul duggagum de sukk naa nga am boo ko takkee nga yóbbu ko sa kër mu moo tax Cheikh Malick takkagul jabar waaw ak El mi wane ko su sab yi ban moo ci mag <laughs> nekk si suuf bi de waaw gi de moom mat na moom. <laughs> waaw gi daal waaw gi daal moom mat na. ak ay waaw gi mat na di ñii. yam de. <laughs> léegi macha allah tey tey tey léegi bu fekkee hmm, ki dafa nekk kii du jullit ñu ni ko boo tuubul doon la may mu tuub ñu may ko ko mu tuub bi dañ tas ah bañ tuub bi. gannaaw moom bu tuubul lu ñu ko may kay mu tuub rek mu gis nga loolu tax ñu may la jabar tuub nit ki da koy seet mu neex ko yonent bi neex ko yàlla neex ko mu xool ni diini bii ma diini bii moo ma gënal nga daal dugg ci lislaam waaye du jigéen du dugal nit ci lislaam jigéen kese aay itam du dugal nit lislaam ndaw si bëgg naa ko ñu ne bu woon duñ la ko may ma dem nekk jullit ñu may ma ko ma dugg ci rek fase ko da nga koy fase kay parce que gëmuloo lislaam le mm-hmm. tuub li koy waral da ngay bëgg lislaam bi mm-hmm. bëgg yonent bi nga gëstu ko ba gis ci lu leer ci yow mm-hmm. nga dugg ci loo ca am nag lew na la boo ca amee jabar lew na la loo ca am rek lew na la boo ci duggee waaye nag du nuyu gars yi dañoo yombal mbir yi moom man daal sama jabar duma doom du ko may ko tuubul man tuub naa. Ah, nga tuubal pratique yi tuubu pratique yi. Mm-hmm. tuub bu mm-hmm. boo nekk si diine si du mm-hmm. ah? ñu bëri duñ julli ah. wallaahi duñ julli. ngi ci diine ji duñ julli waaw. léegi kon tuubee dañuy nangu jabar bi. ah bu tubbee kay dañ koy dindi bañ a dindi bu tubbee ñu dindi ko bu tuubee daal baax na bu tubbee ñu dindi ko waaye dama li ni tuub pour jigéen moo jaaduwul d'accord d'accord jigéen moo jaaduwul waaw lé léegi tey kii dafa nekk moom du jullit waaye ci diine gi mu ne maanaam day jaay sàngara ñoom seen diine daga na la sàngara moom ci la amee alal gi mu bëgg a tuub nekk jullit alal gi bu tuubee lislaam da koy daganal wala du dagan alal ji kay da koy dagan parce que l'islam du nangu alal ji bu ko nangoo fu mu koy jël l'islam du nangu alal ji gannaaw tuub na alalam lew na ko waaw mbaaxul bële ba mu koy def booba boobu alal ji lewu ko waaye diini jëm nekk nangu na ko diini bi mu nekk yahud la wala nasaraan la wala chrétien la walla wala jullit la diini bi nangu na ne jaayal sàngara nga di ko jaay léegi boo koy jaay di ko jaay di ko jaay ba mu yàgg nga ne man mii li ma nekk daal dina jaaduwul man daal naa tuub nga tuub dugg ci lislaam ba nga nga amoon fële leew na la lew fii parce que ba nga duggee ci ba nga nekkee fële lewoon na la yow waaw ndax sa diine nangu na ko waaye bi nga ñëwee ci lislaam bi sa diine du la ko may kon da tuub ba boole alal jéeg lépp jël boo tuubee rek yaa moom saalal lew na la boo tuubul nag ah yaa xam d'accord kii <laughs> kon oustaz ci chapitre xëy na bi ñuy bi ñuy bi ñuy daanale ñoo ngi jëm ci ay élection macha allah mu mel